bismillahi rahmani rahim laa hawla wala quwata illa billahi alaliyi alazim asalaamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu mbokki réew mi mbokki àddina bi noo ngi leen di nuyu bu baax di leen ziyaara di leen balu xaq seen mbokk Maxtaar Sarr mooy nuyoo génn di dikk tey ci sunu ñaareelu vidéo nu leen ko waxee woon noonu lañ koy fas yéene wéyalee incha allahu taala tey mooy ñaareel bi dinañ dikk ci ñetteel bi ak yi ciy topp lépp rek di delluwaat ci leeral benn baat boo xam ne euh, léeg-léeg aw nit muy wahabi yi dañ koy jël def ko mu nekk jaasi di ko daggee bopp ku adhéré wul ci seen kuréel bi muy baatu bida jël baatu sunna moomale ko seen bopp jël sunna jàppee ko comme seen oto bàyyi boo xam ne nii ñoo cay dugal ku leen neex di ca génnee ku leen neex kuñ ca dugal ne yaay nitu sunna kuñ ca dugalul ne la yaay nitu bida ba tax na léeg-léeg njaxas yu baree baree bari ñu ko ci indi mu yell nag léeg-léeg ñu dikk leeral ko buñ ko leeralee ba noppi nag jàll ci leneen bàyyi leen ak seen coow lu bari ndax wahabiya bu noppee rek fay moom li ko jig mooy dëkk di wax rek moo tax sunu kilifa gu tedd ga Cheikh Alhaji Ibrahima Niass bi mu defee munaqasha ak ñoom ci yu bari ci masala fi mu mujj ak ñoom rek mooy duumu fil inkaar wa nahnu fil azkar yéen sax leen di wér weddi rek ñun moom ñi ngi sax di tudd yàlla foofu la mujj ak ñoom ba tax na balaa ñoo kontaan faaw ñu jël ay jullit def leen ñu nekk ay mushrik def leen ñu nekk ay nitu bidaa soog di am li nga xam ne nii moom lañu bëgg ndax seen diine loolu la laaj seen diine laajul talal sa bopp dimbaleel ñi nga tane ci wàllu yàlla xamal leen gindi leen teg leen ci yoon waaye seen diine li mu laaj mooy di luñ ñutu pas-pasu nit koo xam ne nii la mu fas ump na la mën a taxaw jël aw nitu xeetu lëmm walla kuréel lëmm nga def leen ñu nekk nit ñu nama dem safara lan moo tax ñu nam ma dem safara mooy dañoo adhéré wul ci sa mouvement moo tax thème bi ma tuddee ko bidaa ci charia ak bidaa ci wahabisme te incha allahu taala tey danañu xuus bu baax ci borom xam-xamu charia yi nan la ñu gisee bidaa mu leer ne kon ndekete bidaa ci charia ak bidaa ci wahabisme am na différence ndax bidaa ci charia dañ koy séddale ci xaaj bu rafet ak xaaj bu ñaaw ñaari séddale yooyu moo ci gën a siiw donte buñ jógee ci waxtaan wi ko ci mel ni Izzuddin ibnu Abdissalaam ni ko imaamu Nawawi nettalee ci xawaayidul ahkaam wala tahdibul asmaai wal luxaat te Izzuddin ibnu Abdissalaam di borom xawaayidul ahkaam nettale ko fi masaalihil anaam nga xam ne moom bidaay nee na pour ñu mën ko àtte ngir ñu mën ko àtte ne mbir mi bidaa la faw ñu dugal ko ci juróomi yi sharia di àtte muy xaram dagan war sib sopp juróomi àttekaay yooyu sharia di àtte Izzuddin ibnu Abdissalaam nee na faaw ñu dugal fa bidaa pour mañ ko man ko àtte xool ba xam ban euh, bëskil lañ koy teg ndax bidaa bi day nekk lu xaraam wala day nekk lu dagan wala day nekk lu war wala day nekk lu nu sopp wala day nekk lu nu sib nga xam ne moom gën na ko yaatal jëlee ko ci ñaar yi nga xam ne moo gën a siiw mooy bi bon ak bi rafet ñu gën a bari ci boroom xam-xam yi nag ñaari yooyu la ñuy indi mooy bidaa bu bon bi ak bidaa bu rafet bi mais wahabi moo naan la bidaa bu rafet amul waaw bidaa bu rafet amul la lay wax amul lan moo tax yenent bi moo ne kullu bidaatin dalaala waaw wa kullu dalalatin fi naar bépp bidaa ak réer la te bépp réer safara lay yóbbu nit incha allah danañu dikk ci xadis boobu noonu léegi ak ni nu ko ñàkk a déggee ñoom wahhabi yi kullu dañuy jël kullu rek def ko lépp te kullu googu du kullu ko am mais lu nu tax siisal la du sunu waxu bopp nag la indi waxu boromi xam-xam la indi léeg-léeg wahhabi yi ci dëgër fii tam nag bu lay wax borom xam-xam du la tuddal kenn ñu nag danañ am honnête gu toll nii lu ñu leen wax danañ leen wax borom xam-xam ban moo ko wax ak ci ban téeréem la ko wax lu ñu leen wax rek ne leen wax nañ ko ci bidaa dinañ leen wax boroom xam-xam bi ko wax ak ban téere la nekk waaye ñoom bu leen mbir yi wul ñu war ko génnee ci aaya bi ak xadis bi war ko yóbbu ci borom xam-xam yi léeg-léeg duñ am honnête gu toll ni wax la kan ci borom xam-xam yi moo ko wax ndax léeg-léeg ki ko wax ku bokk seen kuréel lay doon te duñ nangoo affiché wu ne kooku seen sëriñ la bu ñuy jàllale message am duñ la nangoo tuddal tamit téere bi mu jëlee lu muy wax ndax xam ne téere bi bu ko waxee danañ dem gëstu ju téere ja téere bi xam ban téere la xam ne mi ngi bokk ci seen kuréel moom noonu lañuy doxalee waaye ala kulli xaalin bidaa ci biir sharia ak bidaa ci wahabisme lu wuute la ndax sharia dalee ko ci Umar ibn al-Khattab radiyallahu taala moo ñu waxoon ne bidaa am na bu rafet am na bu ñaaw indi woon nañ ko day dikkaat rek ndax loolu mooy li gën a dëgër ci li nga xam ne nii moo dikk ci wane ne bidaa bu rafet am na wax naa ko waxati ba léegi nag waxu Seydina Umar ibnu Xataab jooju noonu le dafa nekk jam-jamu paaka ci seen xol akale na naqari wax jooju wax bi ya dëgg wax jooju daf koy déranger bu ko déggee rek ne non non non wax noonu du bidaa ni'matil bidaatu haadihi wala ni'mal bidaatu haadihi bu ko déggee rek xol bi di gañ koo xam ne waxu saxaaba dalay dalay naqari nga ne non non du noonu ab wahaab yi dong nga koy ñeme te Seydina Omar moo tuddee naafila gi mu dekkalaat gi mu dekkalaat gannaaw bi nga xamee ne bu doon ne lu judd woon la yenent bi daf ko rey suul ko ne pare nañ ci bu ko kenn defati ci waxin maanaam bàyyi na ko defatu ko amirul muminin sayyidna Abu Bakri ni Siddiq dikk ne yenent bi sallallahu alayhi suuloon na ko du ko sulli sayyidna Umar ibnul Xataab dikk sulli ko waaye yokk ko ràkka ya yokk ràkka ya waxoon naa ne bu fekkoon dafa yem rek ci fukki raaka ak ñett yi gën a siiw ne yenent bi moom la daan def ci weeru koor ak budul weeru koor ni ko sittuna Aïcha radiallahu taala anha nettali waaye yemul ci fukki raaka ak ñett mais def ko yóbbu ba ñaar fukki raak yenn riwaay yi ne ñaar fukk ak benn yi ne ñaar fukk ak ñett la ko yóbbu ba noppi tuddee ko bida lan moo tax mooy euh, naafi la yenent bi sallallahu alayhi wa digle na ko waaye bu koor gi moom daf ko arrêté def ko defaat ko bàyyi ko Seydina Umar ibnul Xattaab ñëw indi ko waaye ci beneen façon mooy yokk ràkka yi te yokk ràkka yi yemul ci Seydina Umar ibnul Xattaab de bi mu yokkee ràkka yi ba tuddee ko bida dafa gën a yaatu ndax ki nga xam ne mooy Omar ibnul Abdul Aziz nga xam ne moom lañ doon tuddee xaamisu xulafa xaamisul xulafa bi mu dikkee fanweeri rakk ak juróom-benn la ko yóbbu 36 rakk la ko yóbbu loolu boo demee ci risaala bu ibnu abi zaydin alxayrawaani nee na salafu saalix naafila weeru koor daan nañ ko yóbbu ba fanweeri rakk ak juróom-benn gannaaw ba ñu def safaak wiitar muy fanweeri rakk ak juróom-ñeent 39 rakka gis nga salafu saalix yóbbu nañ fa naafila weeru koor te ci biir ñooñu Omar ibn Abdul Aziz xalifa bu maandu boobu noonu le moo yokk li mu ràkk yi wàññi taxawaay bu yàgg ba nga xam ne moom lañ daan taxaw dinaa fi loolu mbokk yi bii daa la ndax du yenent bi noonu la ko defee woon yenent bi fukki ràkk ak ñett mosu ko weesu naa fi la weeru koor bi mu ko defee daf ko arrêté Seydina Abubakar ñëw defatu ko Seydina Omar ñëw yóbbu ko ñaar fukki ràkk ñii ne ñaar fukk ak benn ñii ne ñaar fukk ak ñett moo tax yóbbu gi mu ko yóbbu foofu tax na mu tuddee ko li nga xam ne mooy bida nga xam ne mooy Omar ibn Abdul Aziz ñëw yóbbu ko ba fanweeri rakka ak juróom-benn ba tey bidaa lay des mais ban bidaa mooy bidaa bu rafet gis nga charia dafa xam bidaa bu rafet mais wahabiya moo naan la bidaa bu rafet amul yóbbaale ci nag awaamu naas da nga gis koo xam ne nii euh, faratay njàppam xàmmeegu ko boo waxee mu ne la bidaa du rafet bidaa du rafet boo ko laajee faratay njàpp xamu lan moo tax mooy discours wahabiya yi lay déglu ñu naan ko bidaa bu rafet amul te amirul muminin Omar ibn al Xataab ne bidaa bu rafet am na. loolu moo tax tey danañu xuus ba fa sunu minute jeexee incha allahu taala ñu yemale ko fa ba ci beneen vidéo ñu del siwaat ci waxtaan bu njëkk bi muy jataay bu njëkk bi leeraloon nañ sunna mooy lan ci luxa ak sunna mooy lan ci sharia ñu leeraloon ne sunna ci luxa comme ni nga xamee ne dañoo jël rek benn définition bu ci bi bu ci ibnu taymiya def ci iqtidaa u siraatil mustaqim li muxaalafati ashaabil jahim mu firee sunna ci luxa al aadatu ak at tariqatu euh, ne hiya al aadatu wa hiya tariqu moom sunna ne moy aada mooy tamit yoon dañuy wax ne sunnaal na nangam man sanna comme xadis yonente bi sallallahu alayhi wa bi wax ne man sanna fil islaami man sanna képp ku yoonal fil islaami ci lislaam sunnatan yoon sunnatan yoon sunnatan loo baaxoo di ko def sunnatan man na ku baaxoo fi lislaami ci lislaam sunnatan mbir moo baaxoo di ko def xasanatan mu doon lu rafet man na képp ku yoonal fi lislaami ci lislaam sunnatan yoon muy tariixa comme ci benn pirin boo xam ne nii ibnu taymiya moom la ko firee firee ko tariixa mooy yoon comme li ñuy tuddee ay tarixa muy yoon yonent bi nee na ku ci sos bu rafet mu ne fa lahu ajruha wa ajru man amila biha baadahu min gayri an yanqusa min ujurihim shay'un nee na am nga yoolu la nga sos ak yoolu ka ko def sa ginnaaw gannaaw boo boo fi bàyyee maanaam ku la ca roy loola nga sosoon te du wàññi dara ci sa yool mu ne tamit waman san képp ku yoonal fil islaami ci lislaam sunnatan yoonal sayyi atan bu sunnatan yoon sayyi atan bu bon yaa sos lu bon loo xam ne nii bàkkaar la nit ña di la ca roy mu ne bu boobaa kaana alayhi wisruha nee na am nga bàkkaaru lu bon loola nga sos wa wisru man amila biha min baadihi ak bàkkaaru ku ca ku ca roy sa ginnaaw min gayri an yanqusa min aw zaarihim shay'un te nee na loolu du wàññi dara ci sa bàkkaar yow ma nga xam ne nii yow yaa ko sosoon waaw du wàññi dara ci say bàkkaar ñoom danañ jël seen bàkkaar ba doyal yow tamit nga jël sa bàkkaar ba doyal xadiisu muslim 1017 kon sunna dana firi yoon leeraloon nañ ko ci luxa mais bu dee ci sharia lu ñuy tuddee sin sunna ñu jëloon li nga xam ne moom la ci raaxibul asfahaani wax ci mufradaatu alfaadil quraan ne bu ñu ne sunna mu ne sunna yenent bi sallallahu alayhi wa sallam mu ne wa hiya tariqatuhu allati kaana yataharraha mu ne mooy fi yenent bi sallallahu alayhi wa sallam daan doon jaar jaar li mu xàlloon mu nekk yoonam mu ne moo xam lu doon def la wala lu doon digle la wala lu am lu nit def la mu saxal ko ca nee na loolu la ñuy tuddee li nga xam ne mooy sunna ñu tënk ko rek ci aqwaaluhu afaaluhu taqriraatuhu yenent bi lii jëf na ko lii wax na ko lii saxal na ko am na ku ko jëf mu bàyyi la ca loolu la ñuy tuddee sunna ci sharia gannaaw bu ñu doyloo ñaari wax yooyu noonu le bii bàyyeekoo ci ibnu taymiya bii bàyyeekoo ci raaxibul asfahani ci sunna léegi nag ñu ñëw ci bidaa ñu dalee ko bidaa ci luxa mooy ci luxa ci langue bi langue arab ba tey ñu jëliwaat waxu raaxibul asfahani ci mufradaatu alfaadil quran page 38 wax naa leen lépp lu may wax rek damay wax diwa ko wax wax ci ban téere la nekk waaw ndax loolu noonu mooy gën a noppal nit ñi ci euh, wax rek naan borom xam-xam yi nee nañu boroom xam-xam yi kan kan ci borom xam-xam yi te wahabiye bu ko mbir yi bu bëggee jaxase carte yi rek foofu la yem borom xam-xam yi dañoo wax ni borom xam-xamu sunna yi dañu ne nangam kan ci borom xam-xam yi nañuy tudd turu boroom xam-xam yi ak téere yi waaw tudd turu borom xam yi ak téere yi téere yaa ngi fi téere boo fi tudd mi ngi fi mënees naa xam ban téere la ak li nga wax fan la nekk moo tax ma ne la lu ma ku ma tudd rek walla lu may tudd rek naa la wax ne diwa ko tudd du ma wax sama waxu bopp teg mais dama naan diw neen na mufradatul quran Raaxibul Asfahani page 38 bi muy définir li nga xam ne moom mooy bidaa ci luxa dane al ibdaau inchaau sanaatin bilaxtidaain walaqtidaain mu ne bu ñu ne bidaa ci luxa mooy nga jëf-jëf joo xam ne amul ci kenn koo ko toppandoo wala ci kenn koo ko royee lii yaa ko njëkk def yow yaa njëkk defar portable yow yaa njëkk a defar portable loolu mooy yow yaa indi loo xam ne nii bidaa lañ koy tuddee mooy yaa ko njëkk a def ci luxa ci luxa mu ne bu fekkee nag dañoo jëfandikoo bidaa ci yàlla mu ne fa huwa ijaadu shay'i bi gayri aalatin wala maadatin wala zamanin wala makaanin wa laysa dalika illa allah mu ne bu fekkee nag ci yàlla lañ jëfandikoo sos dara mu ne bu boobaa day nekk sos goo xam ne bi mu koy sos amul matière première yàlla li mu sos comme ba di badiu samawaati wal ard suñu borom moo sos asamaana juróom-ñaar ak suufu juróom-ñaar bi mu koy sos amul benn matière première bu ko bu mu jël pour bind asamaana juróom-ñaar ak loolu moom lu jëm ci yàlla la waaye bu génnee yàlla ku dul yàlla loo sos am na ay jumtukaay yoo jëfandikoo pour sos ko raaxibul nii ba tey mooy wax mu ne euh, sunu borom tabaraka wa taala mi ngi wax ci alquran badiu samawati wal ard gis nga sunu borom moo sos asamaanu juróom-ñaar ak suufu juróom-ñaar gis nga baatu baatu bidaa dikk na foofu ci badia badia uh-huh. mu ne nag bu fekkee ne baat bi wax nañ ko léegi jëfandikoo nañ ko ci yàlla sunu borom moom li mu sos amul fenn fu mu tibbee la mu sos waaye bu dee nit la amul matier premier mais bu dee nit la moom lu mu sos dafay am matière premier mu ne yonent bi sallallahu alayhi wa sallam mi ngi doon wax ni ci alquran sunu borom di ko nettali maa kuntu bidaan min ar rusul maa kuntu bidaan min ar rusuli man rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam ci suratul ahqaaf nekkuma ku ku nekkuma bidaa ci yenent yi maanaam nekkuma ku yàlla njëkk yoon yónni nekkuma bidaa ci yenent yi mooy nekkuma yenent bi jiitu ci yenent yi nekkuma yenent bi yàlla njëkk yoon yónni mais am na yenent yu ma jiitu woon laataa may dikk waaw mu ne mën nañu wax ne nekkuma bidaa ci yenent yi maa maanaam du man la yàlla njëkk yoon yónni wala kat nekkuma di sos lu bees ci ay wax mais li may wax nii dafa am ñu ma jiitu woon doon ko wax yàlla yónni woon yónni woon leen ko ma nit ma ñëw di ko wax kon gis nga baatu bidaa dikk na ci alquran ci ñaari laay yooyu muy badiu samawati wal ard yàlla ne ma sos asamaana juróom-ñaar ak suufu juróom-ñaar bidaa tamit dikk na ci suratul laqaaf yeneen bi ne maa kuntu bidaan min ar-rusul nekkuma kunu maanaam kunu eh, ku bees lu nu inventé ci yenent ku nu ci yenent maanaam du man la yàlla njëkk a yónni wala du maa njëkk a wax ne man la yàlla njëkk a yónni wala maa njëkk di woote ci yoonu yàlla man sallallahu alayhi wa lu ci nekk euh, mën nañ ko koo firee kon gis nga foofu ne bidaa ci luxa mooy lépp loo xam ne nii euh, yaa ko njëkk def amul ku la ko njëkk a def loolu la ñuy tuddee bidaa ci loolu la ñuy tuddee bidaa ci luxa Mhm. lu mel noonu boo demee ci almisbaaxul munir fi garibi charxil kabir ahmad ibnu muhammad ibnul fayumi nga xam ne mi ngi génn àdduna 770 mi ngi ko fay wax ne abdaa allahu taala alxalqa ibdaan ay ibdaan xalaqahum laa ala misaalin yàlla moo sos nit ñi ab sos moo leen sos maanaam moo leen bind ci fu mu ko royewul amul lu ko jiitu woon mu ne xaaral ma bind nit niroole ko lu mel ni la ma bindoon waaye nit ñi dañ leen a sos nit ñëpp ay bidaa leenu ci yàlla mu sos leen te amul fu mu ko royee mu ne bu ñu waxee ne mbir mi yow yaa ko sos mooy yow yaa ko njëkk a def yaa ko njëkk a def loolu la ñuy tuddee ba tey bidaa ci luux moo tax ci turu yàlla yi am ci tur woo xam ne badin lay firi al loolu boo demee ci lisaanul arab ca xaaju juróom-benneel ba xëtum juróom-ñett mi ngi wax ni badin mi ngi bokk ci tur yàlla yi sunu borom subhanahu wa taala euh, ngir fent gi mu fent mbir yi ak sos ko te amul dara lu ko jiitu woon waaw moo njëkk a sos lépp moom sunu borom tabaraka wa taala amul dara lu jiitu woon la mu sos moo tax ñu tudd mu ñu tuddee ko albadi mooy ki nga xam ne moo njëkk a sos lépp moom sunu borom te amul fenn fu ko roye woon ba tey rek ñu ngi ci bidaa ci luuxa ba tey boo demee ci almujamul wadid bu nabil abdusalaam haroun ca xaaj bu njëkk ba xëtum ñeent fukk ak juróom mi ngi fay leeral ne moom bidaa mooy lépp lu ñu sos moom daf ko gën a yaatal ne bidaa mooy lépp lu nu sos ci diine fi diini wa xayrihi ci diineeg lu dul diine mu ne loolu noonu ne dañ naan lii kat yow yaa ko sos lii kat yow yaa ko sos kon mu ne bu ñu tuddee ne mbir mi sos nga ko ne bidaa la mu ne moo xam ci diine la wala bi di bi diine dañ naan mbir mi de yow yaa ko sos mu ne làmboo na ñaar yëpp moom borom mu'jamul wasiit wala mu'jamul wa wajiz am na mojamul wasir mais bi mojamul wajiz bu nabil euh, abdou salaam haroun nee na bidaa mën na nekk loo sos lu manti doon moo xam ci diine la wala biti diine kon li nga xam ne moom mooy bidaa mu ngi noonu ci luxa ba tey doyul ñu wéyal bidaa ci luxa naka la ko boroom xam-xam yi déggee ñu jëliwaat waxu xaafad ibnul xajar al asqalaani ci fatxul baari sharxu saxiixi al buxaari foore ju mag jooju ashaira bu mag boobu tabaarakallaahu wala ashaari bu mag boobu euh, boo demee ci téeréem bi mu sarxa saywul buxaari bi muy firi wa charra al umuuri muxdasaatuha wa kulla muxdasatin bidaa bi mu koy firi ne bidaa ci luxa kullu shay'in uhditha ala ghayri misaalin lépp loo xam ne dañ ko sos te amul lu ko jiitu woon mu ne loolu la ñuy tuddee bidaa ci luxa mu waxaat feneen ba muy firi nicmatil bidaatu haadihi ndaw bidaa bu rafet mu ne bidaa cosaanam maa uhdisa ala ghayri misaalin saabiqin mu ne bidaa ci luxa mooy lépp loo xam ne dañ ko sos te amul lu ko jiitu woon amul misaal mu ko jiitu woon loolu mooy bidaa ci luxa kon mbokk yi leer na ne bu ñu ne bidaa mbir mi bidaa la ci luxa mooy yaa ko njëkk a def loolu di dàq ca àll ba waxu wahaabiya yi nuy wax ne wax ji Seydina Omar wax ne ni'mal bidaatu haadihi wala ni'matil bidaatu haadihi bidaa la ci luxa loolu dafay dàq ci àll ba lan moo tax mooy dàq mooy Umar li mu def mm, ñoo wax ne yenent bi mos na ko def maanaam naafila weeru koor yenent bi mos na ko def ba ko ba ko xanaa dañoo waroon ñëw continuer bàyyi ga Seydina Omar ñëw dekkal ko gannaaw xam ne ne lii mu def bidaa la moo tax mu tuddee ko bidaa mais ban bidaa bu ne woon lii ma def kat bidaa la ñu ne ah Omar xanaa dafa fàtte wala dafa jub ndax li mu def yenent bi mos naa def lu ni mel te bidaa ci luxa mooy li yenent bi mos a def Euh, bidaa ci luxa mooy loo xam ne yaa ko njëkk def te moom lii njëkk koo def mais yeneen bi mosoon na ko def waaye seen naaw ma daf cee teg ne bidaa bu rafet mu boole ci baat bu rafet léegi ki ñëw bëgg a dàq seen waxu seen naaw ma jooju xam na ne xadis bi wér na mënu koo dàq xadis moom bu wérutoon bu ñu amoon fenn fu ñu langaamu pour dàq ko dañ koy dàq wala asar bi mais gannaaw mënu ko mënuñ koo dàq nag léegi taawil moo ci des. wahabiya bu amul texte boo xam ne mën na sukkandiku bu dëgër mën a langaamu ci taawil dana jëri taawil mais bu amee si kenn bëgg a taawil texte mu ne la déedéet kenn du taawil texte bi maanaam moom daal lu ko arrangé ci mbir yi daf koy jël lu ko arrangé wul mu sànni ci àll loolu moo tax gis nga téere bii di laa yafqahuun Cheikh Tidiane Gueye mi ngi leen ci indil benn xët moo xam ni euh, bidaa wahabiya yu rafet yi la ko tuddee bidaa yi nga xam ne wahabiya ñoo ko sos muy page cinquante neuf pour walla ne rek ñoom bu fekkee mbir yi arrangé na leen danañ ko jël di ko def donte yenent bi sa ak saxaaba yi mosuñ koo def mais ñoom daal danañ ko def danañ ko def baaxal ko ci bidaa yooyu nga xam ne wahabi yi ñoom ñoo koy def maa ngi wëyal sama euh, tomb yi ma nekk ndax maa ngi toll ci bidaa ci luxa maa ngi ñëw léegi ci bidaa ci charia mais damay dugal foofu rek benn benn benn saf-safal foofu dellusiwaat waaw ndax dafa am solo dafa am solo léeg ngay fàttali ne diinay wahabiya mooy bakkanam léeg-léeg mooy bu ko arrangé mu baaxal ko bu ko arrangé wul mu dàq ko bu ko dàqee nag mën na ko dàqi at bés bu xëyee arrangé ko mu jël ko sa xalaat comme rek seen seex bi nekk seen xalifa bi ci Sénégal bi mu ne julli naa ci jumaa ju tedd jëlee ca Touba te ñoom ñu doon wax ne jumaa ja armeel la gis nga seen dëgër fii rek seen ñeme yàlla tax na am ñu génn ci ñoom di ko jéem a layal ne ne mbir mi boroom xam-xam yee ci weranti bàyyi xadis yi fële ci àll ba xadis yi nga xam ne moom lañ doon layoo démb nga xam ne koo mos laaj ci kilifa wahabi yi mu ne la dafa xaraam ngay jullee ci jumaa juñ ñu nit boo fa jullee sa julli wérul waaye gannaaw seen xalifa bi nee na julli na ca jumaa ja xamuñ nu ñuy def moo tax ñu daw langaamu ne borom xam-xam yi nee na ñooy donte moom it noonu la ko waxee ci fataawam bi wax na ne mën nga faa jullee bu amee xaayil te waxul ban téere la ko jëlee fenn fu mu ko jëlee waxu moom moo ñëw rek waxi waxam teg Mm-hmm. dama la koy dëggalee wan la ne ñoom diine ji lu leen arrangé ñu baaxal ko lu ci seen waay def ñu baaxal ko bu fekkee nag seen waay nee na bon na defu ko ñu taxaw nag indi aaye bu ñu am mën koo méngaleeg loolu pour dajji ko ñu teg xaddis bu ñu am dajji ko teg waaye bu leen arrangé moom seeni uh, kilifa def ko baax na ñu baaxal ko bokk na ci yooyu mooy fukki fan yu mujj ci weeru koor dañuy dajaloo ci jàkka yi ne dañuy def salaatu tahajjud dañuy naafila guddi gi jël kaamil bi di naafila loolu noonu la ci bidaa yi nga xam ne ñoom ñoo ko def jële wuñ ko ci yeneen bi sallallahu alayhi wa wuñ ko ci saaba yi dajale góor ak jigéen ci jàkka fukki fan yu mujj ci weeru koor ci weeru koor di naafila kaamil amul benn xadis bu ci rot benn saxaaba mësu koo def waaye ñoom wahabi yi ñi ngi koy def baaxal nañ ko yemuñ ca de waaye bu ñu demee ba ñaar fukkeelu guddeeg juróom-ñaar muy guddeeg leeratul xadr dañuy def li nga xam ne moom la ñuy tuddee xatmul quraan maanaam dañuy taxaw di ñaan tàllal loxo yi ne dañuy def xatmu ndax kaamil bi mat na loolu amul benn xadis bu ci amul benn saxaaba bu ko daan def yeneen bi sallallahu alayhi wa mosul dinaa fi la fukki guddi ci weeru koor ci jàkka dajale saxaaba yi dinaa fi la yamu ca moom yeneen bi sallallahu alayhi waaye bu ñu demee ba guddi ñaar fukk ak juróom-ñaar dafay def xat mu tàllal loxo yi di ñaan gaañ yi di jooy loolu noon la bidaa la boo xam ne nii wahabi yi ñoo koy def waaye boobu dañ ko tuddee bidaa nee nañu ndax baaxal nañu ko dañ koy def noonu ba ci seen sëriñ ju mag seen sëriñ su mag sax ku ci mel ne Uthaymin mën naa ko tudd biñ ko laajee waaw xatmul quran bii ñuy def ci biir naafila ci guddig Euh, laylatul qadri moom lan mooy cëslaayam ci diine mu ne xawma ko ci yenent bi sallallahu jànguma ne yenent bi daan na ko def jànguma ne saxaaba yi daan nañ ko def moom honnête na moom def fatwa boobu Xusaymin nee na daal luñ ko mën a tollaleel mooy ku ci mel ne Anas ibn Malik bu demaan euh, jàng alquran bay jeexal maanaam bu daan def xat moom di jàng kaamilam ba muy jeex doon na dajale ay njabootam di ñaan loolu daal lañ gis ne am na waaye nag di naafila moom jàng kaamil pare tëj kaamil bi taxaw di ñaan mu ne loolu gisuñ ko ci yonent bi gisuñ ko ci saxaaba yi Xusaymin mu ne te loolu ñoom ñi ngi koy def ñoom wahabiye yi keneen ku dul ñoom bu ko defoon tey nga de su fekkoon mu tasawifu ne waa tasawuf ñoom ñoo xewal ci weeru koor ñu dajaloo fukki fan yu mujj yi ñu génnee góor ak jigéen ca jàkka ya dinaa fi na guddi ñaar fukk ak juróom-ñaar ñuy def xan mu tàllal loxo yi di ñaan comme nañ koy defee ca màkk su ko fekkoon ne mu tasawifu ne ñoo ko def tey ñu deeg bidaa waaye gannaaw ñoom wahabi bidaa boobu ñoo ko dugal ci diine ji pour ñoom ayu pour wan la ne lu ñuy baaxal rek mooy lu ñuy def lu keneen def nag ñu sikkal ko te bii nii war na bokk ci yi ñuy layal mooy euh, xatmul xuraan bi ñuy def guddi ñaar fukk ak juróom-ñaar muy guddi laylatul qadr ca Kaaba ga wahabi di ko fa def taxaw di ñaan ku nekk tàllal sa loxo di jooy nañ ñu wax fan la ko yonent bi daan defee ak saxaaba yi fan lañ ko daan defee boo waxee ñu ne la alxuraan ak sunna kepp alxuraan ak sunna fan la saxale ne guddi ñaar fukk ak juróom-ñaar dafa bokk ci sunna yonent bi sallallahu alayhi mooy dañuy naafila kaamil bi buñ demee ba laylatul xadri ñun ñépp ñu taxaw di ñaan di def xatmu bi mu bi waxuma la jëmmu xatmu bi noonu di ñaan mais ñaan dañ koy ñaan dañ koy jàng rotul ci sunna rotul ci njàngaleem saxaaba yi maanaam ñaan gi jëmmi ñaan gi nga xam ne moom nga dégg léeg-léeg ku ci mel ni ki euh, su dee si di ko jàng gaa yi di naan amiin bay jooy ñaan googu noonu le te dañuy wax ne te dañuy wax ñaan jaamu yàlla te ñoom ñooy wax ñoom wahabi ne ñaan euh, jaamu yàlla la goo xam ne nii euh, danga ci war a yem ca la nga xam ne nii moom moo ca rot sañoo cee ñëw di ci inventer sa bopp lu la soob loolu ci seeni pas la bokk léegi ñoom ñaan googu nga xam ne moom la ñuy jàng tuddee ko xat xatmul quraan bi ñuy def fan la rot ci kutubu sunna yi du nu ko génnee mukk waaye gannaaw ñoom ñu ngi koy def noppi nañ ci baaxal nañ ko su am keneen ku nekk ca wet ga di def leneen ñu ne bidaa la kullu bidaatin dalaala laa yajid xadis ba rot sa kaw wa la dalaalatin fi naar xadis ba rot ci sa kaw bépp bidaa réer la te réer gu nekk da lay yóbbu safara mais ñoom bidaa bale taxaw di wax amiin guddig laylatul xadri bidaa boobu ñoom du yóbbu kenn safara mais bu ko mutasawifoo ne dafay nag dem safara ñun daal du ñuy def àjjana la ñuy yóbbu yéen mutasawifoo ne lu ngeen def safara la leen di yóbbu ana maanuti waaw ana maanuti mhm. gannaaw loolu nag ñu ñëw ci bidaa ci sharia ngir bidaa ci sharia ñu mën ko xam dañuy dem ñu ubbi ji tahdibul asmaai wal luxaat imaamu nawawi moo ko def ca xaaj bu njëkk ba xëtum ñaar fukk ak ñaar page vingt-deux tahdibul asmaai wal luxaat imaamu nawawi foore ju mag jooju moo ko def bi muy firi bidaa ci sharia daf ne al bidaatu bi kasril bàyyi ci kasra baa gi fi shar'i bi daa bidaa ci sariya mu ne hiya ihdaasu ma lam yakun fi ahdi rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam wa hiya munqasimatun ila xasanatin wa qabihatin mu ne bidaa ci sharia bu ñu waxee lii bidaa la ci sharia mu ne mooy nga sos mbir moo xam ne amul woon bi rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam di dund mu ne loolu la ñuy tuddee daa ci sharia amul woon bi yenent yàlla muhammad sallallahu alayhi wa sallam di dund mu ne nag dafa séddalikoo ci rafet ak ñaaw imaamu nawawi nee na bidaa léeg-léeg mu doon lu rafet léeg mu doon lu lu ñaaw wahabi yi ne déedéet lu ñaaw dong la mën a doon mënul doon lu rafet kon yaa ngi comprendre titre euh, silsila bi mooy bidaa ci charia ak bidaa ci wahabisme imaamu nawawi fóore ju mag yi nga xam ne moo sarxu sarxu bu rëy bi ci sayul buxaari nee na bidaa léeg mu doon lu rafet léeg-léeg mu doon lu ñaaw wahab yéene non non bidaa moom ñaaw rek la mën a doon muy benn noonu mu ko waxee noonu la ko Fayyuumi moom tamit waxee mi ma tudd léegi ñu koy wax Ahmad ibnu Muhammad ibnu Ali al Fayyuumi nga xam ne mi ngi génn àdduna 770 ci gàddaay gi moom it dafa firi bidaa ne bidaa ci sharia mu ne mooy nga dolli dara wala nga wàññi nga dolli ci diine wala nga wàññi ci diine mbir mu ne nag léeg ñu tuddee ko lu ñu sib léeg ñu tuddee ko lu dagan mu ne daal pour ñu mën ko àtte wa shahida li jinsiha aslun fi shar'i waaw mu ne mooy loo xam ne daal cosaan li xeetu li nga def xeetu li nga xam ne def nga ko am na cosaan ci sharia ñu man ko àtte mu ne benn mu nekk lu sharia àtte ne lu lu dagan la wala lu nu sopp walla boog mu nekk loo xam ne dañ koy dugal dugal ci maslaha ñu gis ne lii kat diine ji moo ko soxla nekkul lu ñu xaraamal nekkul lu yàq ñu jël ko jëfandikoo ko comme ni ko borom lu sharia yi di jàngale léegi am na mbir moo xam ne naan maslaha la diine daal soxla na ko nekkul loo xam ne lu mu digle la gaa mu nekk texte bu ne def leen nangam nekkul tamit dafa am texte bu ñëw di ko tere waaye maslaha la ñu jël ko jëfandikoo ko comme mu ne bidaa foofu lañ ko mën a àttee ñu xool ban xeetu bidaa nan lañ koy tuddee ndax bu baax bi la wala bu bon bi lay doon mooy li ma waxoon gaa yi ñu nekk di wàcc ca ci boobu ba léegi naan xool leen ko jàngul ndax mi ngi jël conférence naan bidaa la <laughs> te ba tey moom laay wax de ak seen coow lu bari yëpp ma dégg leen ak seen wàcce ci yu bari yëpp conférence bi daa la yenent bi mosula conférence sallallahu alayhi wa sallam ci jamonoom sahabatul kiram mosuñoo conférence ci seen jamono bidaa dong la mën a tudd ban bidaa nag lañ koy dugal la wax ñu ne bu fekkee waxa bii la waru la conférence ndax bidaa la boo xam ne moom bu euh, yenent bi mosu la def kon warula la conférence bu mu daw di langaamu ci ay maslaha déedéet yow it yow daal yaay saxal ci nopp nit ñi kitaab ak sunna alquran sunna kepp maslaha moom leneen la wala léegi da ngeen da di soppi seen tur bi ngeen ne alkitaabu wa sunnatu wal maslahatu ñu xam ne léegi am na leneen lu yokk ci mbiri waaye léeg bu leen mbiri arrangé ñu ne waaw maslaha mursala xam nga léeg am na loo xam ne maslaha moo koy laaj maslaha mursala yeneen bee ko jàngale sallallahu alayhi wa waaye mbir fekk mi ñu leen di arrangé ñu bëgg ko lay rek danañ am ñu daw langaamu fu leen arrangé pour man ko layal moo tax conférence dégg naa ñenn ci ñoom ñu ne waaw euh, maslaha mursala la ma ne ah man ton tontoogu leen ma de dama ne leen yéenay wax ne alquran ak sunna nangam yenent bi mosu ko def bu ma kenn ne yenent bi mosuloo conférence waaye maslaha mursala la maslaha mursala ñun ñoo koy jël ñun ñu gëm ne gi bidaa bu baax am na te maslaha mursala bidaa bu rafet dong la bidaa bu rafet kese lañ ko mën a tuddee waaye gannaaw doo nañu bidaa bu rafet boroom xam-xamu lislaam yépp saxal bidaa bu rafet wala ñi ëpp ci ñoom saxal ko ñu ñëw ne bidaa bu rafet amul moo tax bu ñu ba ñu bàyyee bidaa bu rafet lañ daw jëli maslaha mursala moo tax fa yuum yi wax ne bidaa daal mooy dolli ci diine wala nga wàññi ci mu ne nag lenn li léeg mu doon lu ñu sib mhm, mu ne wala mu doon loo xam ne lu dagan la mu ne nag faaw ñu dugal ko ci biir sariya pour àtte ko pour mën a seet ba xam ban àtte lañ koy jox ndax dafay doon maslaha boo xam ne luy baax la ci diine ji ñu jël ko saxal ko wala day doon loo xam ne nii lu yàq la su boobaa ñu dàq ko fi ñu daanalee vidéo bi ba beneen vidéo insha allahu taala ñu wéyal ndax lu bari des na lu baree baree baree bari des na pour war la ne rek boo déggee bidaa rek laajteel ban xeet la ñan ñan ñooy jàngale bidaa ndax wahabiya yi la wala borom xam-xamul islam yi ñooy jàngale bidaa bidaa ci sharia ak bidaa ci wahabisme tuddal naa la imaamu nawawi tuddal naa la alfiyumi ma ñëwal la ci imaamu shafii imaamu shafii nga xam ne ñeenti école yi ci lislaam benn bi moo ko jiite ñeenti école yu mag yi ci lislaam benn bi moom moo ko jiite moom imaamu shafii ci waxam lay daanelee ba beneen yoon insha allahu taala ñu wéyalaat imaamu Shafii dafa wax ne al bidaatu bidaataani bidaa ñaari bidaa mu am bidaatun mahmudatun wa bidaatun mazmuumatun mu ne bidaa ñaar la ñu ne ko ban ak ban mu ne bidaa bu nu ŋàññi ak bidaa bu nu gërëm mu ne ñaari bidaa yi ñu am mu ne fa maa waafaqa sunnata fa huwa mahmudatun bépp bidaa bu fa huwa mahmudun wa maa xaalafa sunnata fa huwa mazmuumun bépp bidaa bu dëppoog sunna mu ne bu boobaa bidaa la boo xam ne nii bu nu gërëm la waaye bu dëppoowul ak sunna nekk bidaa bu nu ŋàññ bu dëppoo dëppook sunna dëppook sunna mooy lan mooy lii nga def yonent bi sallallahu alayhi wa sallam terewu ko boobaa dëppoon ak sunna léeg-léeg seen xel yi dañ koy jël ruuy ko naan wahabiya day jël xel mi ruy ko naan toog di wax nag ndax boo nee sunna rek ñu ne la yonent bi mosu ko def fàtte nañ sax lu yonent bi mos a nga ñoom ñu naan la waaw yonent bi nangam mosu ko def te yonent bi moo ne ubbi naa bunt bi terewuma leen ngeen sos lu leen neex sos leen waaye nag na doon lu rafet na doon lu dul jur bàkkaar boo sosee mbir sariya day ñëw ne la indil ma li nga sos ma xool lu mu doon su xoolee gis ne lii nga sos sariya daf ko tere mu ne lu xaraam la sànni da nga ñëw ne sa danga nga sos tariixa ci waxin ñu xool tariixa bi lan nga ciy digle pour ñu def ko astaghfirullah laa wax ne dee leen ko def subaa ngoon laa ilaha illallah subaa ngoon salaatu ala nabi subaa ngoon sharia dafay wali validé ndax moo digle istighfar digle salaatu ala nabi digle laa ilaha illallah sharia laa wax waxuma wahabiya de boo demee ci wahabiya bu tuddee tariixa rek mu ne la ca àll ba te yenent bi moo ne ku sos lu rafet ku sos man sanna fil islaami ku sos ci biir lislaam ji lislaam ji may nañ la nga sos donte ñeen ñi ci wolof nañuy wax ne sos ak sof mais sos laa wax sos yonent bi nee na ko sos ci lislaam xadis bi ñuy layoo ba tey wahabiya bu doomam di nàmp mu jàngal ko ko man ahdatha fi amrina hada ma laysa minhu fa huwa raddun sos ci sunu mbir yi lu ci bokkul dañ koy delloo <laughs> ma laysa minhu danañ ci dikk danañ ci dikk ci beneen silsila bi insha allahu taala pour dajee ko rek wan la ne seen xel yi dañ koy ruy naan yeneen ci bi ne ne ku sos ci sunu mbir yi maa laysa minhu baat boobu nañ ko répété téeméeri yoon ñu mbaxe bii maa laysa minhu lu ci bokkul lu ci bokkul mafhumul muxaalaf bi mooy lan bu fekkee mbir mi daf cee bokk ndax loolu noonu dafay nekk lu ñuy delloo déedéet dañ ko ci bàyyi moo tax imaam bi muy wax ne kullu bidaatin la am maxsuus la ne na li ko tax siisal mooy man sanna fil islaami sunnatan xasanatan moo ko tax siisa kon yenent bi sallallahu alayhi wa sallam terewul sos lu bon la wax muxdatan kullu muxdasatin lu bon kullu muxdasatin lépp lu sos mu bon di lu xaraam bidaa lu xaraam loolu bidaa la nga la nga sos ak réer la ndax lu xaraam kenn waru koo taxaw bépp réer safara lay yóbbu nit mooy ku def lu xaraam boo ca dee safara nga jëm point moo tax boroom xam-xamu lislaam yi bu ñu ne bidaa rek ñu jël ko teg ko ci béskil seet ndax bu baax la wala bu bon bu dëppoog sunna ñu ne baax na bu dëppoowul ak sunna mu ne ñu ne lu bon la dëppoog sunna mooy lan lii nga sos yenent bi in texte bu wér dikk na ne lii def xaraam lu mel ni kii ñaari ràkka tisbaar ñeenti ràkka la nga ñëw ne léegi ñaari ràkk la comme ni nga xamee ne noonu la kuréel yu sànq di ko wootee léegi ba yegg ci nañ fii ci Sénégal ne alxuraan ñaari ràkk la saxal bu ñuy julli julli ñaar ràkk yooyu mooy bidaa yi nga xam ne umma bi yépp loolu lañ dëppoo ne bidaa la ku ci dee safara nga jëm ndax dafa leer teg si diine yi ne julli ñeent tisbaar ñeenti ràkk kon ku ñëw ne ñaari ràkk la nga lu bees ci diine ji loo xam ne laysa minhu bokkul ci diine ji fa huwa raddun dañ la koy delloo ci àll ba yooyu mooy yi nga xam ni mooy bidaa yu xaraam mooy bidaa yu xaraam waaye ñaata mbir lañu sos ginnaaw yonent bi sallallahu alayhi wa sallam dalee ko ci saxaaba yi taabiina yi taabiina taabiina yi ku ci nekk mbir ya nga sos te incha allahu taala buñ ca yegsee lu ci nekk danañu koy indi loolu nga sos dañuy xool lu bu dëppoog sunna alhamdulillah bu dëppoowul ak sunna ñu sànni ci àll ba loolu la imaamu Nawawi wax Bayhaqi nettali waxu imaamu yi wala loolu la imaamu Shafii wax ba tey Bayhaqi nettali waxu imaamu Shafii ci beneen waxam ci manaaqibam muy manaaqibu Shafii imaamu Shafii di fa wax ba tey ne lu ñu sos daal ñaari mbir la mbir moo xam ne dañ ko sos yu xaalifu kitaaban muy wuuteeg alquran aw sunnatan wala muy wuuteeg sunna aw atharan wala muy wuuteeg benn waxu saxaaba aw ijmaan walla muy wuuteeg dëppoog boroom xam-xam yi gis nga ba tey dañuy jël mbir yi yóbbuwaat ko ci ijma atte ko fa mu ne bu boobaa fa huwa bidaatu dalalati loolu mooy bidaa bi nga xam ne mooy bidaa cànkute waaye mu ne lépp lu ñu xam ne sos nañ ko ci mbir yi te nekkul lu dëppoog lu wuuteeg alquran ak sunna ak asar ak ijma mu ne loolu nga sos xayru mazmumatin kenn ngàññ ko waxu Bayhaqi jooju nga xam ne nee na waxu imaamu Shafii la bay Bayhaqi nettali ko ci manaaqibu Shafii ibnu Taymiya noonu la ko nettalee ci téeréem bi mu tuddee muwaafaqatu saxiihil manquul li sarixil maquul ci page cent quarante ba noppi mu teg ca ne wéeruwaay bii nga xam ne moom la Bayhaqi nettali mu ne Bayhaqi nettali na ko ci weeruwaay bu wér moom ibnu Taymiya maanaam ibnu Taymiya wéral na ne lii lu wér la ne imaamu Shafii moo ko wax ne bi daa daal ñaari bëskil lañ koy peese benn bi dafay daanu ñu ne xaraam benn bi daanu ñu ne dagan mu ne lépp loo xam ne ñëw na ñu jël ko mbir mi ñu àtte ko doo yem rek yeneen tibeeg saxaaba yi de waaye mu ne dañ koy yóbbuwaat ci ijma imaamu Shafii mooy wax ijma nga xam ne wahabi day jël diine ji xaaj ko ci digg bi pour ñu àtte mbir dañuy weesu léeg dañuy génn alquran génn sunna dem ci ijma ba yegg ci qiyaas ba yegg ci qiyaas alaat yi yépp dañ koy jël jëfandikoo ko ci sharia mais diinay woy tayal yi mooy diinay wahhabi nga xam ne daf lay yemloo rek non non non alquran indiwu ko hadis indiwu ko duñ ko àttee ci alquran ak hadis kepp yem ci déedéet mais dañuy weesu foofu noonu le alquran hadis ñu indi athar saxaaba yi wax nañ ci nangam lii la ci saxaabatul kiram dëppoo lii lañ ci wax te loola ñu ca wax doo ko fekk ci kitaab doo ko fekk ci sunna waaye seen déggin ci alquran ak sunna la ñuy defee istinbaat seen ijtihaad akay àtte mbir ñu jël loolu noonu la dugal ci diina ji validé ñu gis mbir mu xew ñu xool alxuraan gisuñu àtte ba xool at hadis gisuñu àtte ba saxaaba yi gisuñu àtte ko ijmaa dikk borom xam-xam yi lan lañ ci dëppoo loolu tamit nekk beneen bëskil ci sharia bu ñuy pesé jëf buñ gisul ijmaa ñu ñëw nag indi qiyaas mbir mi daal ana lañ ko mën a tollale qiyaas ak borom xam-xamu usul yeeg yañ ca indi ci seeni werante mbokk yi ñu yem foofu noonu la incha allahu taala ba beneen numéro bi muy troisième numéro incha allah ñu wëyal ba tey danañ indiwaar waxu imaamu nawawi lan la waxaat ba tey ci bidaa ci sharia xaafaz ibnul asir lan la waxaat ci bidaa ci sharia xaafaz ibnul eh, abi bakar ibnul arabi almaliki lan la wax ci li nga xam ne moom mooy bidaa ci sharia izzuddin ibnu abdisalaam borom qawaidul ahkam fi masalihil anam lan la wax ci li nga xam ne moom mooy bidaa ci sharia ba ci ibnu rajab alhanbali lan la ci wax ibnul hajar al asqalaani lan la ci wax ñu soog di indi nag ay misaal ci firi xadiis yi wane ne du kullu bidaatin dalaala dañ koy déggee rek kullu muy lépp lu mu ci doon waaye yan misaal lañuy indi ci alquran indi ko ci sunna indi ko ci asar luy wane ne du kullu gu nekk rek day doon wala kullu bidaatin dalaala day nekk lépp bidaa ak réer la comme ni nga xamee ne noonu la ko wahabiye yi di firee incha allah di leen sant di leen gërëm ci déglu bi di jeexale comme niñ leen ko indilee woon ci euh, numéro bu njëkk ba ay téere yu bari mën ngeen ci delluwaat yoo xam ne ku bëgg a xam wahabiya yeeg seen fas pas-pas nga uti téere yooyu tey téere bii la ñuy jeexalee incha allah pour jàngkat yi nañ ko uti muy asalafiyatul muasira ila ayna ila ayna wa man humu ahlu sunnati salafiya yii Oustaz Ahmad Diop yàlla na ko yàlla wéral ter moom boobu daf maa neex lool moo tax ma koy nettali lu bari mooy njugum sunna su bees yi njugum sunna su bees yi waaw man nga ko firee turu téere bi asalafiyatul muasira njugum sunna mu bees mii ilaa ay na ba kañ ak ñan ñooy ahlu sunna Mouhamad Zakki Ibrahim moo taalif téere bi téere bi toll na ci tabaarakallahu 88 pages toll na ci mu ciy leeral salafiye yi ñu bokkal jamono di woote woo fu mu toll fu ñu toll ne ñooy ahlu sunna wal jamaa ba kañ ak ñan ñooy ahlu sunna wal jamaa loolu lay leeral ci biir téere bi jàngkat yi nañ uti téere bi incha allahu taala mhm. am na beneen téere boo xam ne bi muy jeexal téere bi fii mi ngi koy cité mooy ahlul qiblati kulluhum muwaxiduun wa kullu masajidihim masajidu tawxid ñi nga xam ne ñooy jublu penku di julli ñépp ñuy weetal yàlla lanu seen jàkka yi jàkka yi wéetal yàlla la <laughs> waaw ñoom ngay gis ñu tudd masjidu tawxiid <laughs> jàkka ji mooy jàkka yi tawxiid ndeysaan jàkka jàkka yëpp jàkka yi tawxiid lan amul jàkka ji ñuy dugg te waxuñu ashadu an laa ilaha illa allah wa ashadu anna muhammadan rasulullah waaye dafa am terme yoo xam ne nii ci pas-pasu waxeb yi terme yooyu daf koy neex pour mu mën a dajeeg mbokk jullitam ci jàkka ji ne kii du jullit ndax mushrik la lan moo tax mooy lii ak lii ak lii moo tax ñuy am jàkka tawxiid nangam tawxiid nangam tawxiid nangam tawxiid téere bi ku ko wuti yar ko ba tey danga nga dooleeku xam ci wahabiya yi ak seen pas-pas kon li mooy ñaareelu numéro bi ci bidaa ci charia euh, ak bidaa ci wahabisme ba beneen jataay incha allahu taala ñu wéyal ko di leen sant di leen gërëm ci seetaan bi wasalaam